tey boo xoolee y a eu quelque temps deux mille vingt et un comme deux mille mhm. manifestation yi ñu gisoon ci réew mi yëpp c' était pratiquement contre la France contre les occidentaux contre certains et cetera mhm. tey ces gens là ils veulent se rattraper ñu faire semblant que avec ils sont avec le peuple mais tout le monde sait que ils ne sont là que pour leurs propres intérêts mais est-ce que tam gisoo ne le président de la République est allé trop loin. deuxièmement jàppoo loolu yow. deuxièmement deuxièmement tey ces gens là encore une fois nous n'avons pas de leçon non man c'est ma lecture et nous n'avons pas de leçon à recevoir de ces gens là. parce que. oui parce que ñoom li li li ñuy reproché. ils font ça dans le pays. kan moo fi reporté élection à 10 heures non non je parle pas de report des élections je parle pas de report. mais seen seen seen seen seen i cette attitude-là euh, euh, euh, de patriarche cette attitude de cette attitude euh, parentale boobu ñu bëgg ñu bëgg teg Sénégal. Mm. loolu Sénégal du ko nangu. les prisonniers politiques sont envoyés. loolu Sénégal du ko nangu y' a pas de prisonniers politiques au Sénégal. Ah, man ça je mets ça c'est moi a pas de. détenu président parle maintenant y' a pas de. Ah, détenu politique nangu na de. dafa am dafa am hmm. dafa am euh, ay manifestation yu am des manifestations non autorisées. et qui devrait être autorisé nga dem si d'accord ça c'est autre chose. Hmm. nga dem si manifestation non autorisée. donc da ngay enfreindre la loi. Hmm. donc loi dafa dal sa kaw. ces gens-là s'ils sont arrêtés c'est parce que dañu enfreindre la loi et je prie pour que tous ces toutes ces personnes-là ñi xam ne jàppoon nañ leen si dans le cadre de ces manifestations-là ñu libéré d'accord et si tant yooyu le président de la République alors je poursuis sur li ma doon wax sànq. Hmm. tey boo gisee même les lobbies LGBT ñi ngi taxaw di immiscer wu si affaire si affaire si affaire si est-ce que report élection moom mooy moom moom mooy moom mooy seen leen motif moom mooy tax ñuy wax Sénégal parce que ils n'ont pas su quand même ak xeex yu ñuy def yëpp ils n'ont pas su trouver fii ci Sénégal terre bu nga xam ne que mën nañu fa gis seen bopp et tey c'est une occasion hmm. bu ñu leen offrir bu leen peut-être que yéen ñi nga xam ne ay aar suñu élection et cetera de bonne foi ah vraiment de bonne foi ñi ngi xeex pour que ñu teg seen élection ils en ont profité pour s'engouffrer pour pour jëmale mais tout en tout état de cause lu ñu si mënti wax mooy Sénégal le président de la République n'a ne subit aucune pression mi ngi doxal lu nga xam ne que moom moo tax ñu teg ko fi et mi ngi doxal loo xam ne. dina fexe ba bu fi jógee bu fi jógee ku fi ku fi ñëw topp dina fekk un état intraçable. kon nekkul dans une dynamique de de respecter le calendrier républicain. non le calendrier c'est-à-dire c'est pas à lui encore fois de dire nañ ko respecté ou pas. ah mais moom moo dàq di. non xam nga xam nga aussi ñun ñun ñëpp ñu si réew mi président la bi dafa énumérer ay faits ne lii moo tax nañu ajandiku bu ngeen dégloo le discours en wolof. nañu ajandiku processus électoral bi loolu la président wax si ajandiku bi li ñuy def yëpp nañu xool lan moo si teguwul ak yoon lan moo si yoon nekkul. Hmm. assemblée nationale li si def si yoon lañ ko teg commission d'enquête bi ak ak ak ak ak ak la loi constitutionnelle bu jógal lépp yoon moo lay ko may ñu def ko c'est pas automatique que le juge bu déposer plainte rek l'Assemblée nationale dafa war a dafa war a arrêter les travaux de la commission non ça se en république mais procureur. en république non loolu nga wax sànq. da non da nga ne nous sommes en république. non waaw waaw justement donc nous sommes en république. fii la la procédure da war a suivre bi juge bi déposé plainte procureur le ministre da war a jot transmettre la lettre à l'Assemblée nationale foofu la ñuy procédure foofu la ñuy la commission et loolu moo am ba ñu arrêter les travaux ma que depuis dañu war a interposé bu ngeen dégloo bu ngeen suivre il a deux ou trois jours mais LDRS a sorti un communiqué le président Modou Diagne Fada a dit nañu arrêté les travaux de la commission nañ ko arrêté parce que le juge dugal na le juge dugal na recours. plainte plutôt dugal na plainte lool non seulement dañ ko war a arrêté day régler problème boobu mais gis nga problème bu amee problème bu amee pour man même l'arrêt des travaux de la commission source de dégel la pour man source hmm. ma ne c'est la non je suis d'accord. waaw non wax ma loolu dama ne. c'est prévu par les textes d'une part. Hmm. loolu d'accord ah c'est prévu par les textes d'une part ñu dindi ko mais source de dégel la maanaam tey ñaari institution yi nga xam ne ñu ngi doon mbëkkante. pour man dina am tension bu xaw a wàññeeku tuuti. mais ça ne tey non tey. ça tey te tey bu ñu toogee fii ñu ne euh, élection yi dañ koy tenir à date dañuy nax bopp ñun ñëpp tous hmm. les acteurs. waa taxawook waa toog ak ñëpp dañuy nax suñu bopp. kon mënul nekk non dafa mënul nekk. d' léegi élection kañ la mun a am selon yéen la majorité non la hmm. majorité a proposé le décembre. parce que aussi élection c' est phasé dafa am ay phase hmm. phase yooyu il faut nga respecter ko. Hmm. pour mën a def organiser ay élections dans les meilleures conditions. donc loolu moo tax tey même bu fekkee ne que conseil constitutionnel dafa dafa dafa déclaré compétent. pour atte pour atte conseil constitutionnel dafa naan telle date la ñuy def élection. Mhm. compte de phase yi nga xam ne fa la ñu war a jaar yëpp pour que processus électoral bi kenn du si mën kenn du si mën a problème donc loolu mooy yoon beneen bi ñu ngi naan ay à partir de xaw ma avril président nekkul président loolu yaakaar naa ñun Sénégal luy suñu problème bu rëy a rëy mhm. mooy problème intellectuel la ñu am. problème intellectuel. on en a pas assez. non on en a ah, mais des fois des fois par parlo bi dafa dafay ëpp. est-ce que du droit rek la ñuy wax yéen tam bu euh, wax droit mm. bu dee droit la ñuy wax. je suis pas juriste vraiment. maître Doudou Ndoye. Mm, euh, mais après. il a dit subjectivement. <laughs> et objectivement on ne pouvait pas reporter l'élection présidentielle. Ismaïla ah, donc à quel Ismaïla se fier. à quel Ismaïla se la question. mais non ça je retourne la question <laughs> maintenant maintenant moo tax moo tax ça je vous retourne la loi bi. bu fekkee dafa repousser élection yi. le con le président de République day nekk en fonction ba l'entrée du proche ba l'entrée de son successeur que ça soit le 2 avril que ça soit le 20 mars. que ça soit assemblée moo ko décidé. justement moo tax nag ñoom il faut pas que aussi ñuy wër di wax réew mi ne à partir du 2 à partir du 3 le président de la République nekkatul président République c'est-à-dire loolu pour man. vous m'excusez un peu du terme mais dafa xaw a xaw a jege malhonnêteté. bi du jeex euh, mandat bi jeexul mais dañ ko dañ ko dañ ko ko yokk ko. kon laal ngeen mandat pour ce kan kon laal ngeen mandat bi monsieur Faye kenn laalu mandat bi. non xam nga protocole xam nga xam nga protocole kii dafa problème am na. Mm. bu mandaawam jeexee. problème am na. assa assemblée euh, maanaam kii li conseil constitutionnel li mu waroon def mooy yow sa mandaa jeex na damay dem nga toog da ngay xaar président de l' assemblée mooy assurer intérim. mais non c' pas ça mais non loolu mais nag loolu non non texte prévoir loolu droit ça c' est pas du droit c' est pas du droit. mais yokk de démission du président de foofu le président assemblée. en cas de vacances en cas le pouvoir n' pas vacant. mais le pouvoir est vacant. ensuite bu ñu ñëwee bu ñu ñëwee ba président de la République euh, ñu jàpp ne dañu def élection kañ la mandaam mooy bu successeur bi di si foofu foofu la vacances du pouvoir la ñu am te dans ce seul contexte là si le président assemblée nationale di ñëw maintenant yéen le rôle des politiques du Sénégal de manière globale ak ak après de la société ak ñëpp. mooy ñu bañ a souvent di ànd ak dem ay positions circonstanciées d' accord position circonstanciée mooy tey man maa ngi Benno lu benn wax d' accord naa suba nekkuma Benno lu Benno wax d' accord pour man ces positions là dañ ko war évoluer surtout surtout surtout surtout la nouvelle élection da demoon da ngeen demoon dialogue parce que amoon ngeen thème de référence mais non je suis désolé les thèmes de référence dialogue yëpp yi am yëpp. te dialogue ba la dialogue ba lañ koy lañ koy négocier kenn du ko négocier avant amul fenn bii tamit ku ñëw si dialogue bi si ngay négocier ne man point bii bëgg naa mu dugg si point bii bëgg naa mu génn si extra extra extra donc loolu aussi il faut pas que ngeen di ngeen di ñu jéem a jéem a lënd mën xelu nit ñi. d'accord alors sinon notre aspect gis gis nga dëkk buy dox dëkk àdduna bi yëpp am na amnistie guerre mondiale sax am na amnistie yan fee ñoo gën a garaaw fee de guerre guerre mondiale ay combien de personnes yu si ñàkk seen bakkan mais dëkk dafay toll fu nga xam ne nit ñi dañu toog man pour man li li Senghor wax sànq et c'est très important gis nga bu jege fii tey je pense que Sénégal dina am ay lois yu nga xam ne ak ay nit yu nga xam ne kenn dootul ñeme wala sax xel kenn dootul xalaat ne réew mi nii la war ak ku fi ñu toogal non pas dàq élection seulement il y yoo xam ne pour man bu ñu si phase bi ñu nekk nii dootul amati ah, en on avait pensé la même chose. voilà qu'est-ce qui s'est passé en 2011 est-ce qu'il n'était pas question de parler du mandat du président de la République. Hmm. du report de nga xam de de manifestants de manifestants qui ont été tués en il y a une dizaine. Hmm. et aujourd'hui je pense les chiffres sont quand alarmants. donc on est entré c'est comme si l'histoire se répète. mais mais mais les choses les les les y a eu des morts. oui ñu ñu regretté bu baax a baax am na ay ñu yàqal seen bien ñu regretté bu baax a baax a baax mais les responsabilités sont partagées. les responsabilités sont partagées bu ñu jël rek ne. xam nga lu mu tax lu tax mu yomb yaa ngi responsabilité mais si si si la justice avait fait son travail. peut-être que vous vous ne seriez pas là à dire les responsabilités sont parce que. justice moo war a pointer responsabilité. oui ne diw moo def diw moo def. mais jusqu'à présent. il y a pas d'enquête d'enquête sérieuse. non loolu pouvoir établir dama la bëgg a article wala loi bu génn tey bu ne le le mandat du président a été prolongé. amul amul léegi. loolu dès lors que amul. prolongé nañu datu élection mais datu mandat prolongé wuñ ko donc fa mandat. fa la yem hmm. vacance day am de fait. boobu benn la ñaar bi may ma may ma xaaral xaaral waaw may ma may ma xalaat la wala maintenant maintenant ma jàll ma jàll ma jàll ci beneen bi conseil constitutionnel yéen la rek c'est waaw léegi conseil constitutionnel gis nga conseil constitutionnel dama yaakaar ni nit ñi xamuñu lan mooy composition au conseil constitutionnel ñett ñoo mën a dem conseil constitutionnel les inspecteur généraux d' maanaam ku nekk inspecteur général d' état. ñoo fi mën dem. xaaral ma ne. ma yegg dama ne ñett ah, hmm. inspecteur général d' état. non c'est pas ñoom la ñu mën nommer. de droit mooy ñi nga xam ne c' est des professeurs de droit titulaires ak les hauts magistrats. ñett yooyu may ma ma yeggal waaw mais mais sëñ bi waaw mais xam nga vraiment aussi dañuy wax li may wax ci Google waaw may man li ma lay wax dama ko xam may ma yeggali mais may ko may ko mu wax ci biir IGE boobu noonu y a trois grades pour nga nekk IGE boo duggee à part le grade de stagiaire tu peux être inspecteur général d'état de troisième classe après de seconde classe après de, de, de non de troisième classe de seconde classe et classe exceptionnelle bu loolu weesoo pour aussi nga mën a prétendre ñu nommer la IGE il te faut vingt ans de de service effectif ci biir fonction publique bi que ça soit nga nekk magistrat wala professeur titulaire donc il faut ñu xam ne ñii ñu fay nommer. du ñu qui duñu n'importe qui hmm. ay kilifa lañu. donc tuuma nag alali gor la ku ne mën ngaa jug tuumaal nit loolu mu ku ne mën nga ko def mais c'est pas parce que dañu tuumaal nit rek dañu war a arrêter toute la vie tout le cours d'une nation ça c'est un la deuxième chose nag li ma jàpp man mooy tey conseil constitutionnel nous avons sept sages wax dëgg yàlla ëllëg pour gën a pour gën a corser les choses nomination du conseil constitutionnel ak les tests yi nga xam ne ñoo régir les nominations du conseil constitutionnel man bokk su ma ci amoon possibilité dinañ dinañ proposer ces deux choses là mooy benn bi ñi ñu ciy nommé vingt ans yooyu ñu yokk ça c'est un service tey nag ak ak ak vraiment les les bons et loyaux et le, le, le la moralité qui sied ça c'est un enquête de moralité, la, voilà la deuxième chose mooy même ci biir les inspecteurs généraux d'État mu nekk uniquement ceux de classe exceptionnelle ba pare trois troisième chose mooy ñu yokk ci la possibilité d'avoir soit une commission ad hoc wala mu nekk wala ñu mën a yokk les hauts officiers supérieurs c'est-à-dire les générales de corps d'armée et les générales d'armée yi nga xam ne ils ont eu à effectuer soit ñu nekk semga wala haut comme jeune mais nag des anciens généraux c'est-à-dire ñu nekkatul en service et que ñoo xam ne seen service ça a été prouvé que ils ont été comme ça leur intégrité ne peut pas être mise en cause ndax nag nañu waxante dëgg mais ces hauts officiers la on sait tous que c'est des gens respectables et respectés man boog sama contribution ci côté boo loolu mooy conseil constitutionnel du organe bu ndaw. mais même malgré le mu nekkoon ah. organe bu ndaw war na day dem dialogue day dem dialogue alors Senghane Senghane Senghane deux choses. bu njëkk mooy euh, Benno Bokk Yaakaar ne pas en conflit avec le conseil constitutionnel il faut que conseil mais Benno moo appuyé PDS. Ah non non non non. on n'a pas compris quand même le soutien le grand soutien bi nga xam ne apporté nañ ko. non xam nga xam nga au parti démocratique sénégalais c'est ça qui laisse croire en fait que yéen yéen a soxla woon dialogue. loolu moo tax il faut il faut il faut ñu génne équivoque Benno a dit ñun dañu am candidat ñu tuumaal suñu candidat ñun lépp luy participer si setal suñu candidat dañ koy dox. c'est ce que Benno a fait pour soutenir pour soutenir la motion du PDS. Hmm. deuxièmement. c'est pas encore une fois Benno encore moins le président de la République ñoo nekk en conflit parce que ñii bu ñuy wax da ngay am impression que que l'opposition sénégalaise ak ak ñenn ñi ils sont ils avec le le conseil les autres ils sont contre le conseil alors que loolu amul fii tout le monde respecte le conseil constitutionnel tout le monde respecte les juges du conseil constitutionnel. Mm. beneen bi li Souleymane doon wax léegi nii man je pense que il s'est même. Jules pour man dafa dafa sax. dafa jaxase boppam d' accord parce que dafa njëkk wax ne conseil constitutionnel tel corps lañ fa war a tel corps tel corps lañ fa war a loolu c' est pas du du loo xam ne dañ ko bind sur du sur du marbre dëkk bu nekk yaay xool yow sa conseil constitutionnel noo ko bëgg tëggee. xeetu nit ak ban xeetu corps nga bëgg mu dugg ci conseil constitutionnel nonobstant man IG laa def naa cinquante ans simple nit la dañuy xool ku si nekk. am na ñoo xam ne par exemple si en France ay président ancien président de la ñoo fay nekk. Mm. beneen dëkk ñeneen ñeneen ñoo fa nekk donc le choix des personnes yoo fa nekk dëkk bi. d' accord non loolu moo tax moo tax man quand même ça c' est pas l' objet. d' accord c' est pas l' objet du débat. donc encore une fois rek man les précisions yooyu laa bëggoon def mooy que ñu xam ne. même le PDS bi déposé recours bi c'est pas du PDS xaw ma xaw ma xaw ma seen seen seen seen seen xel su nekk mais PDS si boppam. ñëw ñu fi nekk en conflit avec le conseil constitutionnel ils sont peut-être en conflit ñoom si lu ñu jàpp ne seen candidat a été lésé si double nationalité au même moment beneen candidat bàyyi nañ ko mu jàll te même condition yooyu même même double nationalité boobu. donc ça ça ça, ça c'est. d'accord d'accord d'accord Senghane. on voit que suñ dégloo euh, Mohamed le président de la république mi ngi mi ngi taxaw ba tey fi mu taxawoon c'est-à-dire moom euh, waxul waxu rapport te dégg nañ tànkaafu bi mu def keroog ay euh, way politique ne bu ngeen ñëwul dialogue d'autres forces organisées mun nañu ñëw parce que nous ne sommes pas seuls sur sur la mm. que loolu yow da nga gis ne appel à coup d'état loolu est-ce que du yokk ay parce que à suñu élection mu ngi préparé wu yeneen cercle yi ngay tudd sànq aussi ñu ngi préparé wu pour le respect du calendrier républicain s'il campe sur sa position ñooñu tamit campé ci seen position di xeex pour le respect du calendrier républicain fan la réew mi jëm. dama bëgg def ñaari précision ñett balaa ñoo balaa vraiment ñoo toll ci laaj bu njëkk bi mooy jeune.